Mandelaare papa papa ba ko finalo yàlla ndeysaan mbapat Jifir ndeysaan groupe baax yaay nee nañ ma si Jifir yombul ya muy yegg waaye tey ñu final poids lourd ba amee Double Moteur fii sa biir Juwalo ak yaa xadi bu ndaayaan xam lay campagne Jifir waaye nee naa la amee Double Moteur rek moo jël poids léger yi ma ngi taxaw di seetaan lakk nag lañ fa teg waaye su ma la raw gàddu fi nga xam mooy ngooye 500000 lañ fa teg waaw waaw Mor Faafa ko samedi lay jeex ba lu raw million balaa dem na 1 million 500 vendredi ak samedi muy suba ginnaaw suba waaye nee naa la vendredi samedi dimanche sum loo xam ne lamb takk na ko daan na ko doole dexul jàmm poids lourd ba poids léger ñibbi nañ fa nga xam ne ndeysaan moo di palmarengal